salaamaaleykum wa rahmatullah yéen mbokku julliti yéen mbokku taalibe yi kenn ki si nekk ñu ngi koy nuyu ci turam ak santam di ko tàmbalee ci suñu sëriñ bu mag ba sëñ Muntaxa yal na fi yàgg te wér ba sumu yu mun naa yal na ko àggale fi alhamdulilahi rabil alamin di wàccaa ci suñu jëwriñ bu mag ba sëñ Modou Menda Fall ibnu maam Cheikh Ibrahima Fall ba sumb yu mun naa yal na ko àggale fi alhamdulilahi rabil alamin waaw ñu ngi santaat mbokk taalibe yi bu baax a baax nag ñi nga xamante ni maanaam bis bi mu ñëwee ba tey ñu ngi jóge ba Touba ñëw Gabon pour ànd ak ñun bis bi kon seen taxawaay vraiment ñu ngi koy rafetlu ñun ñëpp ñëpp kontaan nañ waa Libreville ñëpp kontaan nañ waa Port-Gentil it ñëw nañ ci liggéey bi ñu nag ñoom depuis dem ba tey ak karawaan bi ba nu ñu egsee Mayumba santaat nañ bu baax a baax nag waaw liggéey bi nag di bañ jàppee bis bi ba tey bañ demee ci ku tedd ki ba waxtaan ak moom ba mu jox ñu bis ba tey waxtaan nañ seen mbokku taalibe yëpp yaatal nañ ko fu ne yaatal nañ ko fu ne ba mbokk taalibe yi kenn ki si ne génn nga sa dërëm ak sa ñaar dërëm ñu dajale ko ba mu mën a nekk dara ba ki boo ñëwee mën a sentir sa bopp dara waaw santaat nañ bu baax a baax nag santaat nañ bu baax a baax ba lépp ñuy fi indi yal nañ ko sëriñ bi yombalal soxna yi it ñoom it ay jàmbaar lañu soxna yi ay jàmbaar lañu te waa waañ bi ñoom it ay jàmbaar lañu. waaw bu ñu nee mun Muntaxa rek daanaka ñëpp ay jàmbaar la parce que mooy suñu jëwriñ waaw santaat nañ bu baax a baax nag waaw santaar nañ mbokku taalibe yi ñoom it ñu am passif lañu ñii rek ngeen gis mais mbooloo mi ëpp nañ nii dañuy ñaanaat ku tedd ki liñ fiy sàkku bu déwénee mbooloo mi ñëpp ñëwaat ñu ànd ak liggéey sëñ Tuubaa. jërëjëf euh, sama mbokki baay Fall lii laa taxawal dégg ngeen kàddu yi am solo yi ñu yëkkati euh, murit noo ngi lay bëggee bu baax a baax wax nga dëgg Serigne Moussa Ka moo ne woon na leen leer ni Bambaye waane ku mu sopp soppi ko euh, kon nag dañ koy sant bu baax a baax Baye Fall nag du añ bi Baye Fall du reer bi Baye Fall xorom see xorom nag mën a ñàkk ci ñoom ndegem nar naa aw yoon moom bu fekkee da ngay togg soom bi sax faaw nga ni laalal ma ci xorom moo tax Baye Fall ku ko mën a muñ rek xamatuma ci yow dara léeg-léeg nag nit am feebar boo xam ni médecin bi da koy xool ba ne ko yow boo lekkatee xorom kooku nag war ta ñëw ci koñ bi naan bàyyi leen xorom moom moo war a bàyyi xorom soo tax sëriñ bi ci doonul dara na nga ci maandu moom nag nii ngeen bindoo rek la meloon ma rek bu mu saan dox ci rue André Bon ci ndar tubaab yi dañuy génn di ko portele di ko estimé dem na ba tubaab tuddi ko doom muy commandant Karl boo demee Ibrahima Fall Card ñu ngi ko denc foofu ci armée yi ndar yi ab tubaab la demoon nañ ba may ko suuf su nekk tasineer waaye fii ngeen ñëw di ko fi liggéeyal itam doomam la fi yabaloon sëñ Fallou Fall moo daan taalal sëriñ bi bant jalambaan yi tubaab bi bëggoon Cheikh Ibra lool bu ma sànni génne tubaab bi dañoo dem ba bind ne il incarne à sa personne toute la gentillesse la générosité l'élégance la prisation signalement très noir de peau taille au-dessus de la moyenne des Sénégalais frontaux élargis chevelure crépue et broussaillée œil petit et vif arcade sourcilière saillante bouche grande nez épaté alliance dans le pays mariée avec les femmes les plus nobles du Baol et du Cayor et de Sine Saloum descendante directe des anciennes familles royales indigènes Guit et Drobé ces familles ont été rivales pendant plus de 300 ans ce femme se nomma premier Gagne Siri Fall de l'ancien Damel du Cayor Amari Ngoné deuxième Gana Diop troisième Koumba Thieleman et tous les deux filles de Damel Lat Dior quatrième Lalla Aïssata Fall fille de Samba Laobé tuée à Tivaouane avec par par lieutenant cinquième benn faal veuve de Demba War moo tax sëñ Moussa Ka ko yaa jëkk a jébbale sa fekkoon nga gaañooy xor-xorol ñu lay taxal ñu lay setal yaa xàll ngir mii nuy doxee yaa xam sëriñ bi yaa xarañ daawoo werenteeku sëriñ bàjjo bi yaa bari njariñ waaye nag waane wi yàgg ngaa naxee am ngay dërëm am ay ngërëm jël say dërëm jënday ngërëm loo ma sa am faal tàbbal këram ay junni nga daa joxe jox nga ko addiyee gileem yu sëfi ngurdu sëfi koom soldaar sa sax yaa joxe woon sa doom Fallilou Fall am na texe sa ndaw dadaa dem ba Gabon kon yéen ay ndawi Seex Ibra ngeen yu ñëw Gabon sa ndaw dadaa dem ba Gabon di yonu ay saakuy rong di dugg ca gaal yooy yori bong doo ci lëf ba muy maxe kon noo ngi ñaan ci barke boobu ak sëriñam bi ñëwoon fii yàlla na leen yàlla defal tawféex ci darajey maam Cheikh Ibrahima Fall euh, tawféex production sëñ Mourtala nu àndandoo ba tey di ci di ci di ci di ci àndandoo barke seexul Khadim ma sànni ci ay kàddu waaw seede ci suñu sër bi asalaamaaleykum euh, mbokki taalibe yi maa leen di nuyu yëpp suñu sang bu tedd ba sëriñ Muntaxa Basiru na ko fi yàlla yàggal te wéral ko di gittal suñu jëwriñ yi yëpp tàmbale ko ci suñu seex mbeng waaw teg ko mu teg ci loxoy daayira bi teg ko ci loxoy taalibe yëpp waaw bu mu limee bàyyi seex mbeng rek lim naa ñu fi nekk ñëpp waaw bàyyiwuma kenn waaw man fi njëkk a ñëw pour maanaam pour leeral yoon bi nga xamante ni bu mbokk taalibe yi ñëwee yëf yi mën a taw feex ci laa bokk ñun groupe bi njëkk ñëw waaw ñu ngi fi ñëw depuis ñu fi njëkk départ ñu ngi fi ñëw depuis mardi waaw waaw le lañ départ ak sama njëwriñ jooju Mbaye Thiam ànd ak suñu njëwriñ euh, Ibrahima Diop ak Alaaji Bey waaw ñëw fi nag euh, depuis mardi yeesal barab bi yëpp ba mu taw féexe ba gars yi bu ñu ñëwee man fa def waaye bi ñu agsee suñu sœur lañ fi fekk moom mu nekk nag ci diine chrétien waaw parce que fii yëf yi chrétien la ñoom ñoo fi nekk noonu yooyu mbirum tubaab yooyu waaye bi ñëwee daal liggéey bi yëpp lépp lu ñu doon dox moom lañ ko àndal mu taw féexe nag fu ñu dugg bu duggee bëgg ñu nag maanaam mbir mi dafa mel dama ko xool ba sàgg ma ne ko yow chrétien murid nga waaw fu ñu taxaw voilà suñu bàyyi Cheikh Mbengue mi ngi nii moom ngi dugg gi waaw léegi maanaam lépp daal dama yaakaar ne sax maanaam bu fenn ma yaakaar ne fii kër mën na noo fii kër Sëñ Tuubaa ah parce que loolu laaj ñu la ma nga ne ñëpp ñu jox leen dégg nga waaw kon léegi nag euh, je vais laisser ma euh, comme je disais en wolof. mais dis-nous quelques en français. on est arrivé depuis mardi. pour euh, faire d'abord les premiers travaux pour que quand les autres arrivent ça soit bien propre bien présentable pour qu'on puisse accueillir tout le monde et elle c'est notre sœur elle est chrétienne et nous sommes euh, musulmans et c'est la même famille mhm. je vais et moi je l'appelle ma chrétienne mouride Quand on est arrivé, c'est elle qui nous a aidés à faire toutes les courses. Tout ce qu'on a besoin, on l'a demandé, elle nous dit celle-là, celle-là. Et quand on part, c'est elle-même qui parle. On nous dit, faites comme vous voulez, c'est chez vous. Ici, c'est tout bas deux. Donc, je laisse ma soeur, elle va jeter quelques mots. Et... Comment t'appelles euh, Sœur Marie-Élodie de la communauté des sœurs de Notre-Dame, du Rosaire et de la Providence. Nous sommes de l'autre côté. Nous aussi, nous sommes très très contents de vous accueillir sur ce site où a vécu votre fondateur, Et moi, je, ce que je retiens simplement, c'est le fait qu'ils soient venus ici et qu'on l'ait envoyé en exil, mais que Dieu l'a préservé. Parce qu'on a un autre qui est mort du côté de l'Ambaréné, mm. Djolé. Voilà, hein, Samori Touré. Lui, il est mort ici. Mais par contre, Cheikh Amadou Bamba, lui, Dieu l'a préservé. Il a pu repartir jusqu'au Sénégal et il est allé mourir là-bas. Ça, c'est une grâce de Dieu. Alors, je faisais aussi remarquer aux autres la cloche qui est là-bas.

Ah, il savait que c'était l'heure de la prière pour le chrétiens. Il pouvait se dire, c'est aussi mon heure de prière. Donc, il a entendu cette cloche tout le temps qu'il est resté ici. voilà. sëñ si mooy fekkoon na Cheikh Bamba defoon fa jàkka fa penku quartier gi mu jublu màkk bu quartier gi it Bamba daal di noddu mooy li muy bëgg a wax mooy bu ñu mësaan a bës seen cloche bi rek moom day ñëw fii noddu waaw mu ne bu quartier gi it Bamba daal di noddu ñu maaj mu kàbbar noonu ya far ko gedd capitaine ba ñëw fa naan ko Bamba jàkka xewu fi doonu xatal sa jullikaay bi xaju fi sëñ Cheikh daa mel ni loolu la bëgg a résumé mooy kolos bi ñuy dégg ku tedd ki dégg na ko kon kolos bi ñun yamale wuñ ko beneen kolos. nous sommes très contents de votre présence à cette suite que vous que vous mais les, la phrase que vous venez de de de, de dire tout de, tout de suite vraiment ça nous va directement au cœur parce que Cheikh Ahmadou Bamba lui-même il a raconté. l'histoire de la cloche. Il disait qu'à chaque fois qu'il sonnait la cloche, lui aussi, il se levait, il dit Allah Akbar. Moi, donc, c'est la même chose, c'est l'inspiration du cher. C'est Et puis toutes les religions viennent de Dieu. Nous acceptons. Là, il c'est un surat coranique. Il ne faut pas faire la, la séparation, les différences entre les religieux. Et ce qui est valable chez nous, et Aimez ton prochain comme. Voilà, aimez-vous comme Nous sommes très contents et très, satisf très satisfaits du travail que vous avez abattu, de nous aider dans, les dans les travaux. Vraiment, nous souhaitons que ce que vous désirez dans, dans, dans cette vie si que Dieu vous exauce ça. Sœur Marie, Sœur vous savez qu'il y il y a trois semaines, l'évêque de Mouila était avec nous à Touba. Il s'est présent là-bas. Il a demandé au Khalid général de Mouila de prier pour l'éternité, de prier pour que la paix quand même soit dans tous les territoires du monde, dans, chez tous les êtres. Uh-huh. Vraiment, nous sommes très très contents et nous souhaitons de revenir ici et revenir, revenir et vous trouver chaque année et vous trouver euh, et, et, vous obtenez tout, ce que vous voulez. Merci beaucoup. Que Dieu écoute et exauce nos euh, seen euh, mbokk taalibe yi euh, ñu ngi ba tey ci reportage bi ñuy def ci bisub màggaluk Mayumba ñii nag ñooy soxna yi nga xam ni ñoo tax ñëpp di am jàmm ndax xéewlu ku ko deful doo doo doo man lu bari muy waa waañ wi kon damay bàyyi rek jox kenn ci kàddu moom mu wax ci turu ñëpp présenté leen liggéey bi bëgg naa xamit après ci kanam yan plan ngeen préparé tey mu sëñ Tuubaa yi loolu noo ngi fii ci Mayumba 2024 ànd koog euh, sëñ Mourtala waaye ci reportage bu am solo bi ma jox soxna Mbaye seen moom danañ wax programme bi jigéen ñi ban taxawaay lañ ci am pour soññ seen mbokki jigéen yi ne ci àddina bi rawatina Sénégal seen mbokki jigéen ñeneen ñi ndax tey jii lii am fi manga nga France waa kër Sëñ baa yaa nga fayu jigéen ñi ma nga Amérique ma nga fu ne kon soxna Mbaye yow la ñuy bàyyee kat asalaamaaleykum wa di ci xaaral am micro fi am kenn <laughs> salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu suñu xalifa général sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér noonu la ñuy nuyoo sëñ am ni Modou Mbenda yàlla yàggal ko fi taxawaayam yokku ñun jigéen ñi ndimbal wari ñii lañ def booleeg délégation bu Sénégal ñëw di màggal si Mayumba ci jaar jaaru tukkib sëñ bi ci Gabon tubaarikàlla macha allah nii lañ def suñu délégation jigéeni Gabon amuñu xàjj amuñu seen ñoo ngi woot jigéeni àddina bépp ñuy ñëw saa di ko bokk ak ñun sunu yaay yi Aminta Diaga ngi nii mama Absa mama Daba Amar mama Aminta Gaye tubaar fakàlla macha allah tànki Njaay di nu jëmmal te li ko waral lépp mooy soxna jaara buso kóllëreem ak ñoom moom la ñuy topp ba sunu jooni yàlla tey jii di nekk sunu ginnaaw saa sune saa bu nu riiree gis leen ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm di aussi sargal sunu yaay Ndey Juuf ñi la ko daan àndee ñun mu bàyyi koo fi di ko ci ñaanal lépp luñ fi am rek yal na leen fekk ci ñoom ñu jiitu ji ak Ndey Binta sunu mag sunu xarit kenn mësu koo mën ci waañ wi waaw kenn mësu ko ceew man ñoo koy sant ñoo ngi koy gërëm sëñ Mamor bu loolu jàllee nag tubaat fa la macha allah alhamdulilahi rabil alamin rek la ñuy wax ñu ngi daal ci waañ wi li ñu mooy def nañ ceebu jën mu suñ plat national def nañ ñemboy mooy plat waa réew dëkk bii dina di Gabon mooy seen plan national def na ñemboy tubaar fakalla macha allah bu ngoonee ñu delluwaat tubaar fakalla macha allah ci suñuy miche bi li nu njëkkee nag loolu mooy sombi Gabon muy ay ginaar moo fi sombi muy poulet waaw mooy sombi Gabon tubaar fakalla macha allah ci la nu njëkkee tubaar kalla teg ci ceebu jën yi teg ci ñemboy yi tubaar fakalla macha allah nag waa ngi ñëw ñu lewetal ko tubaar fa kàlla macha allah sëñ Mamor kontaan naa borom caaro yi tubaari kàlla lépp a mën a ne yaasa ñoom ci lépp dina jërëjëf sëñ bi soññee yooyu li ma ciy def mooy comme niñ ko daan doxale liggéey ba ca Touba Glace ñun jigéen ñi suñuy 5 tonnes ak sunu 10 tonnes da ciy dem saa sune ne saa rek xam nga xaar moor saa bu nee xob rek association Thiès a ngi fi Dior Diouf mooy sunu maire kër gi la maison mi ngi fi ah Maguette na Seynabou Sall man Mbaye Sène ñoo ci ne ah daayira sëñ Fallou yaa ngi fi daayira sëñ Baara yaa ngi fi chaque jour ni ñu koy defee ci mosquée yëpp bu nu commencé liggéey bi noonu lañ koy doxalee tubaar fakàlla macha allah maa ngi woo waa Jaksaaw robinet Mathias di woo waa Cité La metti sama mag yaa baax wali raadam duran wali galamal janba aqasani al anan min kaydi man khala wasalaka naril khilli li barma yumba